Ndiaye yëpp dañoo bëggoon a xam lan moo waral euh, ñamu mbaam bi si biir si biir teer bi loolu lañ bëggoon a xam quoi ak noonu def ba ba ñamu mbaam bi tuuru ci biir teer bi parce que Sénégal ñëpp a ngi wax ñëpp ngi naan ñamu mbaam bi lu ko waral ci biir teer bi la tuuru kii war a jàpp tëj wax bu nekk yaa ngi koy dégg daal ñi tamit ñu ngi lay kaasal naan ñamu mbaam yoon la ci biir teer bi parce que teer bi ñëpp a ko moom teeru ñëpp léegi yow lay wax waa Sénégal salaamaaleykum wa waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñépp sama siwo bii man mi maa waral coow sama siwo bii mm-hmm. aayut ñaawut te liggéey doo nga ma tax a jóg sama siwo mm-hmm. maa ci def ceeb ub ko mm-hmm. dem garbu bu liggéey port ba wàcc jaar ci gaar bi ma rang war a dugg bi ma duggee ci biir bi ma duggee ci prévu partout ma laa fekk ci bunt bi bàyyi ñu bàyyi ma ma dugg deuxième porte ñu bàyyi ma ma dugg troisième ñoo ma jox billet quatrième ñoo ko wali de mu dugg li tuur siwo bi nag mooy lu mat six cent moo nekk ci cour bi train bi ñëw ñu ubbi porte yi ñëpp màbboo fekk ma dugg toog mbooloo mi dëw ñëw ñoo fël sama siwo mu daanu lii na sa lanu daane sama siwo mais su nekkoon ne ñoom. Hmm. première porte dan ma ne. sew bi du dugg ci po euh, ci train bi. Hmm. man du ma dugg. ndax man yàqu ma xaw ma yàq du ma yàq xaw ma kuy yàq. képp ndogal ndogal la daal man xaw ma yàq luy yàq. man defar moo ma tax a jóg moo tax ma def sew bi ceeb ngir di koy indi. kon man yàqu ma bu ma doon yàq du ma yor ceeb di yàq. léegi Sénégal ñëpp ñu ngi naan ñamu mbaam la ñamu mbaam la léegi dañoo bëgg xam ñam bi ñamu lan la woon. sew bi nekkul ñamu mbaam man jullit laa maa ngi nii. yarumay mbaam maa ngi jéggulu nag ci wax bi maa ngi jéggulu ci wax bi yarumay mbaam man ay xar ak i ginaar laa yor di leen dundal di doole di leen dundal di ma daan sama doole di leen dundal su ma aman saako saakoy ngooñ du may jël ceeb su ma aman saako saakoy ripaas du may jël ceeb kon ceeb bi ci laay débrouiller di ci dundal samay xar ak samay ginaar lii moo tax ma yor sama sewo bii sewo bi nag aayut ñaawut la ma doon amal gàcce mooy sewo bi daanu ñu fekk ci lu buur di aaye mais loolu amul liñ ci fekk mooy ceeb ceeb bi ay xar laa yore ki ginaar bi leen ko yót kon man wet dëwuma daayuma li ma nekk dëgg la ci man awma ci lu may trisé it dañoo bëggoon a xam yow yow xont bi foo ko jëlee ba indi ko fii nii ak foo duggee moom tamit xont bi biir poor laa ko buntu poor laa ko jëlee ci di jaaykati ceeb yi jaaykati ceeb yi yi jaay ceebu añ mm. su ma wàccee fekk ñu dajaleel ma ko ma jël ko ñibbeeg moom man kër Ndeye Fall laay ñibbee. te nag eh, lii yëpp mën nañoo jàpp ni ndogal la parce que barki démb fii nga toog naan teer bi yow yaa doon sa bopp teer bi dafa mel ne sa zaar yi bokkuñu si. parce que ñu tilim ñeeg ñi nga xamante ni dañuy sol ay tëri di dugg ci teer bi ñoon daa mel ne boolewuñ leen si da nga wax fii di sa naan yow sa yow sa jëmmi bopp mel ne bokkoo si ñu war a ci teer bi. waaw. ak ñaata yoon nga mas a eh, jóge eh, port tamit indi indi indi indi ñam xar fii Kër Mbaye Fall. maa man maa wax ne. Mm. ba ma déggee Mansour fay wax ne. teer bi ku yor bagage du ci dugg ku yor tëni du ci dugg man booba laa wax ne kon de man bokkuma ci teer bi ndax sama siwo bii fépp fu nu mu dugg du ma fa dugg parce que damay daan sama doole ci sama siwo bii di ci dundal ay jur kon fu mu dugg duma fa dugg man lool maa ko waxan mais démb bi nekkee ci gaal bi ma doon liggéey leen wax ne mm-hmm. siwo euh, euh, asan bu nu wàccee dem tere ma ne leen man tere bi duma ci dugg. parce que li nuy bañ man dama koo yor kon man duma ci dugg. Mm. sama gars yi ne ma loolu garaawut siwo bi duñ ko aaye lii moomu fa yóbbu mais man bu doon sama gëm-gëmu bopp ak sama plaisiru bopp du ma fa dugg. parce que teeloon nga ko wax sa bopp man teeloon naa bañ lool ca départ. parce que man teeloon nga xam sa bopp aw ma yàq. ñaareel bi it léegi yow léegi yow ñi nga xamante ni jot nañoo wax wax ju nekk wax nañ ko ba tey journal moom la ñu xëyee yow léegi ñooy wax ñooñu looy wax ñooñu. man ñi nga xam ne ñoo film ba affaire bi di hmm. man ñun jéggal naa ñëpp te yàlla tax. ku ci waxaat lu ñaaw wala nga wax ci lu waxewul rek. Hmm. man man jéggal naa la. Hmm. képp koo xam ne ne aman ko ci loolu naqari man Assane Faye maa ne maa ngi lay jéggulu képp ku ma ci waxaat